xasamani najjaani allamani man bil huda najaani un masque masqué masque hafizani hafa nun marbuta masque ñaar la dafa am masque bu ñuy gis am bu ñu dul gis bi ñu dul gis masque bi ñu dul gis sur le plan sur le place spirituel mooy nga jël benn xaraf waxuma xarafu keneen de xaraf boo xam ne ku tedd ki moo ko wax man tubéy pyjama laa sol teg ci lii masqué ko waaw man su ma neexoon sax ñëwee fi puissamment su ma neexoon man maa jàng mu ni bi jiimi hijzim bi jiimi hijzim ca maraaxib jima rajim la jël seetaana rajim jiim ga la jël wax ci yàlla ni ko tëjal ma ko ca moom ñéppam ba lépp lu mu ñaawle mbaa lu di seeni pexe mu bañ a jëm ci man ak képp koo xamante ne bii du adoore suñu borom subhanahu wa taala mi ne ma xalatul jinna wal insa illa liyan bu duuni damay tàmbalee ci tàmbalikaay bi tàmbalikaay bi mooy lan mooy suñu maam Ibrahima moo ñu tuddee al muslimun dama bëgg ku tedd ki ba mu jógee Gabon ba mu ñëwee une année après mu dem moritani wedul ma fekk ko fa dama bëgg jullit yépp ñu yore ay awraad ñëpp ñu yore ay wér di ñëpp ñu xool wérdul maxuus ba xam benn wérd génn na ko wala déet c'est très important settantal maanaam wérd yëpp la boole def ko muy benn fédérateur la rassembleur la yoonu murid wi ñuy wax moom il n'est pas dedans nekkul ci biir kenn du nas kurus ba noppi bokk ca pere imaam du bokk ci sàppe yi jutta bi mufradin lanaa faaxal jumal xutta lanaa mux jëla wa amal moo tax bokkul fenn xajul fenn kenn du ko dugal fenn dama dégg cheikh sànq bi muy jàng tuxfatu mu jàng ko ba mu jeex waaye wajaxal tawassuli liman yad'u bii saxaadata daari ni wax fi lii bii loolu muy wax képp koo xamante ne bii yaa ngi jaar yaa ngi ñaan yàlla jaare ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax fir lii bii jooju mu wax wax fir lii ji naa ko moom moom ko ne ko kii moom ak kii ak sëñ maam war a keneen ak keneen bu ko jox waaw ndax moom lenn lu muy day wax rek dina waxaale dina dugal ci biir te xamuñu ko waaye lu muy jégglu borom moom amul kii jégglu mooy ku def lu ñu lay jégglu moo tax bu bindee bàyyi nu ko nu koy settantal danoo war a xool li mu ci moom moom ak li mu nu ci moomale loolu moo dig dégg ba demee ca taxmis sirri xabihun maa tax muy wax yaa tax muy wax kii tax muy wax ak kii li dox fil xal bi wal badani dafa am loo xam ni waaye xam naa du yomb ndax itam yenn saa yi dama naan yor ba ca si mbay saar fa mu nekk ma def ab diir ñëwaat ndax damaa comprendre moo tax moom mori uri li wacc ñetti murit am ñetti catégorie la ñu murit murit sadiq murit sadiq wa nabil uri li wacc maliki sabila kulla muridin sadiqin nabila moo tax jëwriñ mënut a ñàkk rek dafa am murit sadiq dafa am murit sadiq wa nabil kooku lay woon yoon wi jamono am fu mu toll nun ñëpp nu war a jóg kenn warta toog xam nga dafa am loo xam ne wàccoon naa ak ñun xamal nañu nu ñuy defaroo xamal nañu nu ñuy defaree defaru ak nooy defaree ak li nga war a defar ki nga war a defar ak li nga war a defar dans l'ensemble dinaa ñëw ci fii Ceddu Murit dama koy wax jim la ak daal man bu ma neexee sax dajji laa lay wooye dajji wala jiddaan walla dafa am lu wax léegi loo xamante ni bii ni na ko ci ñëpp jàppale mbir yi dafa war a weesu foofu mbir yi fa communauté mouride communauté mouride am na taxawaay boo xam ne bu ñu ko defee budget Sénégal mën nañ koy financé foofu la mbir yi toll tolluwul ci ñuy wax taalibe yi naan nañ joxe dix mille francs kii cinq mille kii déedéet du loolu une organisation parfaite précise et significative yor ay milliards denc ko Suisse wala feneen lu muy jariñ dee bàyyi ko fi dee bàyyi ko fi Touba mooy sunu sac mu wax ci li mu ci wax lépp boo demee ci Matlabul Fawzayni li mu wax lépp ca dëkk ba mu wax ko ca waaye Touba en tant que tel toowa ba alif réduit yaa mu ne Touba li abdin muridin sadiqin lahumu bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyati ñu dégg ko waaye Touba mu wax boromam ni ko na mel ni turandoom hmm? Touba ga nga xam ne mooy turandoom benn garab la ca àjjana boo xamante ni bi àjjana li muy rëy rëy amul benn château wala benn palais boo xam ne amul branche bu fa tiim mu ne ko na mel ni turandoom bu ko xasee wax rek mel na ni Zahir si nun ci ñun la étape par étape époque par époque Sëriñ Saliou radiyallahu anhu bi ma rayalee ñaar fukki xar ak benn defal ma ko ndékki bi ma dellusee soow ma interprété ko loolu moo waral xisbul xaq gi ngeen di dégg tôt ou tard moom mooy jiite réew mi ndax mooy seet ñoo xamante ni bii ñu jub xocc tôt ou mooy seet ñoo xamante ni bii du ñu rawale alali réew mi te lu ñuy def nañ ci bàyyi xel ku tedd ki loolu dina ñëw mënuma koo ñàkk bañ a wax de ndax xam nga lu tax mooy dafa sosoo ci Serigne Saliou ak Serigne Mourtala radiyallahu anhuma Serigne Mourtala neexale ma ci Mercedes moo tax mënuma koo ñàkk bañ a wax am na loo xamante ne bii fii laa koy wax fang ci tele bi mu concerné mu gën a concerné al mbakki moom laa koy wooye ndax maa gis ku tedd ki bind woyee ci boppam noonu al mbakki yu ahmadu newul ahmadul mbakki yu moo tax ma koy wooye al mbakki yu ahmadu sëriñ Murta sëriñ Muntaxa ñëw fi rek ñu inauguré mosquée bi rek mu demee ni mu demee rek lépp doxe fa tab bi géej du loolu yàgg na ñoo inauguré jumaa fu nekk mbir yeneen la ci biir ñu war koo topp di ko settantal nag ci bayyana lil alimu wal xabiru tabb yii na man tadbiruhu tadbiru te ñu ko war a settantal dafa am spirituel am temporel du caa gën dañu fii nekk ngàmmaaral jëmale ba kañ ba kañ am ñu jàng li ñëpp jàng xam li ñëpp xam yaakaar ko tedd ki moo tax ñii ñaar ñi man dama doon observé kenn par kenn fi ñu toll daanaka daanaka daanaka ku ci ne am na lu ma la ameel parce que man damay settantal xam nga ni ko toog di suivre ba ci àgg nga fekk nga sol tubéy pyjama nga jóg rek teg ci sa sa sa sa bu ñëw gaynde gu tëx la dara yëngalu ma sëñ Maam Mor sax moo ko fi tudd bu dul woon loolu duma ko tudd ci mbiri xale yeeg yooyu ku ne xam na ni ay gone bu ñu du ne ay gone sax ndax ay boroom kër a nga ci yaa am soxna ki doom moo tax ma wax leen ni leen ñoom xanaa ñëpp mu tooñuñu léegi bu ñu tooñ nañ <laughs> nañ leen kii ñi tooñul yooyu sax bref duma ci sori ndax man sama philosophie man ma ki bi ma wooyee téléphone dama ne ko ñun ñëpp war a dugg ci kasu bi amul ma sàmb amul ma demba amul penku laa dëkk amul soowu amul boor laa amul baadoola laa que déjà ñun ñëpp noo ngi ci kasu bi adduniyaa si junul mu'min ala almbàkk yu Amadou ma nga fee di ma kii ndax day bañ ma mais jataay bi dafa ne xam nga ñii dama dégg ñuy wax ay affaire lema kii suukara kii oh. xam nga dafa am loo xam ni wallahi gànna wax na dëgg Cheikh gànna maa ko wax ni ko kenn waru laa salalu xam am na ñoo xam ne kenn warut a jaar ci seen tur direct dafay am loolu ku tedd ki moo koy def gis nga barakatul maahi an la yan tasharat jooju mu wax wa hasfamat kulliyati wa basharat daf nu ko tasaare tasaare ko ñëppam ak féppam <coughs> allahu akbaru mimma kuntu afaaluhu la waxoon wala su axsha wala arju si wàllaah si wàllaah boobu nag ah man de waxoon naa ko ana sëñ Abdoulaat Bousso wa huwa lazi fi samaa'i ilaahun wa fil ardi ilaahun det mu am tur wu tudd azahiru am tur wu ni al albatinu te mu tudd baatin tudd sa di feeñ di nëbb di nekk ci kaw di nekk ci suuf dégg ba noppi ba noppi muy wax yàlla naan ko yonent yi nga bind yëpp ñi nga yónni ak ñi nga yónniwul koo ci bëgg a kaay fii ci man nga jël benn bien boo xam ne day sucré te day meele wax déet koo bëgg a ci sa yonent koo ci bëgg yoolal koo ci bëgg bégloo kaay jël ci man aw yi woo xam ne day saf sucré te day saf lem waa yàlla kon ana magasin waa fekkoon na mu ne xazaayinu rabbi futihat lii wa zazahat li xeyril aza dunya wa oxra wa barzaqu léegi nag almbaki yu ahmadou sa télévision bii faw nag faw ñu ci waxe nu ne te muy tege fi mu war a tege fan lay war a tege gis nga kenn gi mu doon kenn ba ni jutta bi mufradin naa faaxal jumal bokkul fenn bokkul xuttale naa ma jëla jeysin wa amal fii man moo Modou Mbacke maa ko wax fii la réew mi war a defaroo réew mi laa wax ku tedd ki moom noppi na ci ñun noo ci des ñun noo ci des dëgg la télé bi baaxoowul sax kuy wax euh, du jëmali ci daw la wala yu demee noonu waaye nag dafa mënta ñàkk ndax itam nag gis nga malaka ni dunya wa uxra samadu maahindahu liixtaarahu muhammadu maanaam boroom xam-xam yi duñ ci egg moom dañu ko tànnal te yonent bi moo ko tànnal li ci jàgg kuus néew dara jagu ci sax ndax aqbalati dunya illa ya qablu wa bixtuha fa zala anil kablu hmm? ku ne xam na ne adduna moom bi mu ko moomee itam taxul mu soxla ci dara waaye xoolal ni mu nu ko tasaare xoolal suñ Mamor mi jëf yi mu fi def jëf yi mu fiy jëf te nga te nga ko doon wax ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen alaaji Mbàkke yu waxi nopp man li ma li nga xam ne dama ne woon te sax ceddo murid ne tax ma egg foofu ndax loolu lu ma naroon na dox la te waroon cee waxtaan ak euh, almbaki yu Ahmadou mi ci communauté Mouride waaw économiquement financièrement loo xamante ni bii du doon sax maanaam ñuy xaar ay waaw ku nekk yi participer ku nekk yi participer euh, le mouridisme dafa am fu mu toll xam-xam bi bari lool xam-xam bi bari lool ci biir waaw maanaam ñu mën a génne ay milliers et des milliers de milliards ñu war koo mën a génne loolu nag organisation lay doon programme lay doon eh, bis bi moom xam naa yéen a wax ne plateau spécial mais daa yaakaar naa ni moom la yaakaar naa tudd ko rek ndax mbàkk yu Ahmadou mi kaalam gi <laughs> ak man mii nga xamante ne bi daa mel ni rek dañ na ma kii dañ na nga xam ne man man taxi laa naroon a jël xaw ma woon ni bu ma téléphoné dina am caabi oto bu fa nekk bu ma mën a indi ma taxi taxi laa naroon a jël lu dina ëpp te def di <laughs> déedéet te war a ñëw déedéet taxi laa naroon a jël te taxi bi it moom nu mel baax na loolu daal xam naa ne daal li feeñ li feeñ man bi may ñëw damaa fees del moo waral bu ma feesee dama koy dégage dégagement la ci man xale yi miin nañ loolu ci man ba fi ñu toll duutu yëngal kenn ndax ndax bu feesee faw nga nga ko waaye li Cheikh Gana wax sànq ci diggante suukar ak lem dafa romb yooyu waaw dafa romb yooyu xadim daw barki dem dama toog bëccëg gi añ jot mu ñëw di ma wax waxi damadaa ki fekk ma nekk ci loo xam ne ma ne ko yow tu ne pas sérieux waaw ma ne ko sérieux moom bu ma li nga sant ndaw a tax waaye sérieux defoo ko waaw yow li ma nekk nga may wax ay wax yi dama daaki maa <laughs> waaw. Euh, jërëjëf Mbacke waaw moom xam naa dama koy yemale fii ndax man li ma kii moom li ma li ma li ma xaju xajul fii li ma bëgg a wax xajul fii. xajul ci moom daal. mbégte mi daal moom. wax dëgg yàlla. wax dëgg yàlla ku ne xam na ni ni ngay bëggee ku tedd ki moom te dara munta dend ak moom. soif moom mar moom. mar gis ndox mu sedd moo mën a naan te naanoo. loolu dafay gaañe waaw. wax dëgg yàlla léegi nag li Alaaji Mbàkke yu bëgg dinaa ko def dafa bëgg ma am fu ma yem donte moom ma sama bopp itam ndax day am ku may puus dinaa jéem waaye li ma bëgg a wax wallahi nim réew bu ñu bëggee jàmm ji ni wasalaamu ala man ittabaha al huda la daan signé un nom deux signatures wallahu ala ma naqulu ak wasalaamu ala man tab ala man ittabaha al huda wallahi lu yomb la jafewul parce que ñi comprendre wul nañu fexe ba ñu comprendre ñi comprendre nañu fexe ba ñu comprendre ñi nga xam ni maanaam mbirum àdduna moo leen ñor nañ leen ko bàyyee nañ leen ko jox waaye nag dafa fekk mu ni madda liyal xaqul mubinul xaqa wa bil xiyaaral ulama raqa nekkal savant ba noppi nag mu soog a nekk sa escalier savant yooyu nag tàmbalee leen fii ci yéen waaw tàmbalee leen fii ci yéen bu mbàkkee bu soo jàllee ak faal ak jenn nag bu ma bëggee lim yi ndax nag daa seexal ku nekk maa ngi fàttaliku man ak Serigne Abdou Karim bu sëriñ Fallilou ba ñu gënee nekk ay ndaw dañoo mës a ànd peeku Thiès man ak moom dem ci gaane yi di leen jox loxo xooluñu ku wér ak ku wérul ku nu jox loxo nu jox la loxo def nañ ko ba ñuy nekk ay tur tànk naa gis ngeen euh, gis nga ko tedd ki boo ko doyloo wóolu ko nekkul rek ci sopp ko rek ak gëm ko danga koy doylu wóolu ko boo ko boo na la doy na nga ko nanga ko jox sa lépp ndax dafa dafa kii dafa dafa maandu li nga ko jox ci sa bopp rek lay téye loolu mooy tax nag doo am fitu naan ak fu ñu la ko mën a jëlale sangoo lii takkal lii ak sol diwoo kook doo amu fitam doo amu fitam moo tax ma wax bayit bi léegi nii xafisani xasamani najjaani nii man bil huda najjaani lettre bu ci nekk bu fekkee ay waxam la laa wax man bu ma gaja demee du ma jàpp ma gaja demee du ma jàpp waaw ndax damay fekk leeruk shaddak laamuk ma ne naa laab te damay laab maanaa li am solo daal mooy wóolu ko tey doyloo ko ndax itam nag wax dëgg yàlla <laughs> moom fekk na fi jullee gu war de ku tedd ki bi mu ñëwee yi xew ci lislaam yépp da ko fee fekk yim ci am yépp te keneen amu ko li muy moom a tax ndax fii la ko ndax ndax lu mu def fii la te kenn xamul lii mu bind nii da ko dafa ñëw ba fii mu recopier ko fii wala déet daan wóorul kenn ni muy waxee ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam est-ce que fii la ko fii la ko waxee woon ndax wax est-ce que waxewu ko woon ca alamul arwaax ba ñëw fii nag di ko fi delloo si kenn xamu ci dara li mu nu diggal daal jafewul bu nu góor góorgóorloo daf noo diggal ànd ginnaaw ginnaaw bu nu defee ci buum gi daf nu kurus ba noppi dafa bëgg ñu te jàmm ba noppi tey dimbaleente waaw ñi nga xamante ni bi nag <laughs> mbàkki yu danga may <laughs> danga ma koy woowee falaat rek nga xam ne bu ma ndax man du ma fa yàgg dama naan nii rek danga ma koy woowee falaat <laughs> déedéet dama bëgg rek ñu fexe bañ comprendre lool rek la xam nga am na loo xam ne li Lamine Sarr bi wax ñàkk xam la loolu la rek nañ fexe ba ñu xam rek ba ñu comprendre rek man damaa bëgg dans quatre ans réew mi commencé développé waaw sans pétrole nii gaz ñu bañ a basé wu ci loolu mën nañoo fexe ba dans quatre ans réew mi commencé développé te du doon pétrole ak gaz loolu rek la loolu nag bu ñu tënkoo ci joxoñu ku tedd ki rek day amoo salaam.